salaamaaleykum euh, mbokk internet yéen ñi nga xam ni yéen a safoo saa su nekk euh, seen chaîne bu mag bii di King Production am nañu mbégte ak contentement ñëwaat seen deuxième numéro buzz de la semaine di King Production ay ca fi ñuy njëkkeek yéen mooy ci meurtre bi nga xam ni moo am ci Abdourazak Kane xeweewaat fële ci diwaanu Malika xam naa ni Malika moom temps yi yënguna bu baax a baax Abdourazak nag daa nekk koo xam ni ab dessinateur la woon maanaam doon liggéey ci wàllumu aar macha allah yàlla dogal mu nekkoon ku ci xarañoon lool ah, amoon na jabar ba am ñaari doom daa divorcé ak jabaram waaye mi ngi yoroon ñaari tu tànk yooyu ko yàlla mayoon mu waxoon ak as ndaw ba dara desul woon lu dul mu fasanteek moom li nga xam ne mooy ab war koo jël ab soxna indi ko ci kër ndeyam ak kër baayam ca la dajeeg moom ca palaasu Malika ba di waxtaan ak moom ngir ñu amalub li nga xam ne moo di seenu mariage moom Abdourazak Ka fala ko ay samba booy daal di fekk jam ko ay jam yu metti mën naa ni ca la génne àdduna ca hôpitalu Kër masaar ba nga xam ni fala la Fatima Ka génne àdduna kon mën naa ni diwaanu Malikatan yi yëngu na ba léegi ah ñi ñaan yàlla yàlla na fi yam mbokk King Production yépp ngi àndandoo dem di jaale famille Abdou Razak Ka bu ñu jógee foofu la ñuy jaar ci ki nga xam ni mooy fattu Mbacké Fatou Mbacké nag daa doon ab xale bu jigéen boo xam ni macha allah mën nañ ne du waykat du fecckat du théâtre kat waaye turam siiw na loolu ci biir réseaux sociaux yi moom Fat Mbacké mu am ak doom ki nga xam ni mooy Eumeudi Badiane di fecckatub Thione Seck doyatul muy ànd ak Wally Ballago Seck doon sëy ak Kiné mën naa ni Kiné moom delloo na sant nee na santatul Badiane moom Fat bi mu amee doom ak ki nga xam ni moom mooy Eumeudi Badiane ba léegi coow laa ngay wéy di gën a takkarnaase ca hôtel Pullman la dem defalee fa anniversaire lu doomam lu mësta am ci réew mi moom Fat Mbacké suñuy naataango demoon nañu dékk ko seeni micro waxtaan ak moom maanaam lépp lu vie privée am rek Fatou Mbacké teg na ko ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ci digganteem ak ki nga xam ni mooy di Badiane mën naa ni ci biir commentaire yi boo ci duggee gars yi ña nga ci naqarlu li ko di Badiane def waaye ñenn ñi ci biir commentaire yi ñi nga xamal Fatou Mbacké nekk ko ku ñàkk sutura nga ci sa bopp waroon ngaa mën a sàng sa bopp sutura ba sa doom bañ a xam li xew lépp bu ñu fa jógee dañuy desandi ci ba léegi ñi def buzz ki nga xam ne moo di Mbathio njaay moom génn na fi def fi euh, lu doy waar bu yàggul dara dara dara dara gars yi foogoon ni fàtte nañ ko wala Mbathio bana loolu Mbathio ngay wéy di wutu buzz ba jusqu'à présent ni ndax gis nañ benn ojo buy circuler moom Mbathio muy wax ak ñenn ci suñu naataangooy nan leen kon buzz baa ngi dem ba léegi yëguma ko woon te ñenn ñi nee nañ Mbathio moo créé li nga xam ni mooy mariage am ak Youssou ma jigéen Ndour PDG Futurs Médias waaye dara amu ca bu fa jógee njaw a ngay des di woy ca yi ba léegi muy soxna Aïda jàlloo mu sëriñ Béthio Thioune yal na yàlla yokk leeram moom soxna Aïda ba léegi coowam ci biir cantaakun jeexut ba léegi ndax dañoo amul groupe whatsapp bu ñu nekkoon moom soxna Adja ak soxna Bëtoor mu Cheikh Béthio nee nañ groupe whatsapp ba nag nekkatul groupe whatsapp dafa nekk group kaay leen ñu tasaare suñuy vocal ba tax na kii di soxna Batoor génn na ni daal di wax ak mbokk taalibe yi que képp ku nekk ci groupe boobu nga daal di génn abal leen ndax secret amatul ci biir groupe bi moom soxna Aida ba léegi coow a ngay dox di woy ba léegi ndax gis nañ ab waay bu génn wax ni ay soxna Aida dafa ubbi Facebook di ko ca menacer di ko ca wax ay baat yi ñaaw di ko saaga ndey moom soxna Aida Diallo moomu kon coow ma ngay dox di wëy ba léegi Cheikh Béthio Thioune ginnaawam gi tàng na jër te lépp waralu ko lu dul soxna ayda ak ñoñam ba léegi dañuy desandi ci mbirum Aline Mbaye Nder parce que gars yaa ngi génn di commentaire nee nañ ndax Aline Mbaye moo yarut ak njabootam wala daa talut njabootam ndax bu yàggul dara dégg nañ fi coow Adja Mbaye waaye amoon na coow lu ko jiitu ci doomam bu góor bi di ku góor ki nga xam ni moo di taawam bu góor ñu jëloon ci moom nangu woon ci moom lu tollook yamba ju baree baree bare ba tegoon ko ay daanu kaso yu xaw a takk tuuti ak i at bi mu génnee ci la Adja Mbaye ñëw def lu rëy lii kon Aline Mbaye jot na nga xoolaat sa taxawaay yaag sa njaboot